di sant yàlla bu baax di sant si Ahmadou Bamba du ñaanal mun taxaa mu yàgg fi loolu te wér monsieur le président ñun ay doomu daar lañu ñun ay dong lañu ñun lu ñu am Sëriñ Tuubaa ñu ko may te ñoo yar teg si bu respectewul askan wi war a respecté ñi nga xam ñoo toog fii kon fii kenn waru fi saaga te collègue boobu ñu saaga dafay nekkul moo tax kon tamit règlement intérieur bi nga dugal si député yi fi nekk di saaga askan wi ak député yi ñu bàyyi ko loolu tamit maa ngi la koy maa ngi la koy wax monsieur le ministre monsieur le président monsieur le ministre budget bi nga xamante moom nga ñu indil mooy quatre mille trois cent milliards ñu war ko doxalee ci année deux mille vingt muy lu am solo ci gis-gis ak ci dayo ñu ngi la joxoon quatre mille cent onze milliards ngeen ñu ñaar loi de finances rectificative premier mois de juillet deuxième mois de décembre mu wan la ne député yi nga xam moom lañ wate woon li leen joxoon dem ngeen ba nga xamante ne xam ngeen ni mënu leen ko am ngeen ñëw pour que wan da ngeen am déficit ngeen ñëw laajal lu ëpp li nga xam ngeen laajoon daaw te ku ne xam na ni fi ñuy tënk si budget mooy dépense ak recette di jaajëfal sordaal yi nga xamante ni ñoo nekk ci koom-koomu réew mi muy douane 35 à cinquante pour cent dañ ko dugal ci budget national pour que recettes yi waxoon naa la ko pour que ñu def doolu defar seen équipement yi dolli leen li nga xam moom mën a mérito monsieur le ministre man bés bi duma ko mën a woote li tax duma ko mën a woote bari na 77 milliards bés président de la république 8 milliards caisse noire 47 millions par jour bés président de la république kooku duma ko mën a woote bés assemblée nationale tax duma ko mën a woote 17 milliards. boo jëlee maanaam tenue de séance plénière huit cent quarante millions tenue de tenue tenue de séance plénière ku ne xam na ne séance plénière ba ñu ko tàmbalee def ba léegi amul lan lu ñu si joxe mu ngi si rubrique bi kon loolu yaakaar naa ne ay sàcc la ak ay luubal yoo xamante ni si ensemble sax am na fi boo jëlee visite de terrain quatre-vingt-deux millions mais visite de terrain ban député mooy dem visite de ñoo jox xaalis. loolu ay njublang la ak ay luubal ci ensemble national boo jëlee acquisition bien service onze milliards tey jii may wax ak yow ñi nga xamante ni ñooy fonctionnaire yi nekk ensemble national travailleurs yi kenn joxutu leen li nga xam ne mooy seen cadeau de Noël vacances yi nga xam ne moom la seen dof seen doom yi def ko leen ni amatul ñu jël xaalis bi di ko pasar pasare te xam nu mu doon kon bis ba mun ma ko wate 45 millions caisse noire président assemblée nationale dix million salaire kooku duma ko mën a wate kon yaakaar naa ni loolu lépp ay luubal la boo jëlee batch marketing député batch marketing député mi ngi nekk maanaam quarante huit millions sept cent mais may laaj sama mbokk député yi quarante et quarante huit millions cent millions millions fii mille fii million mill quarante huit millions sept cent mille kan moo mas a gañe si xaalis boobu noonu kon li nga xamante ni moom la sama collègue doon wax dafa bari lu luus loo xam ni jàpp naa ni askan wi war leen di wax dëgg te di leen leeral ndax bu fekkee ne la jox xaalis boo xam ne nga ko war a séddale askan wala nga leeral ko yaakaar naa waruloo toog say banqaas muy assemblée nationale président de la république jël lépp yamala ko seen bopp askan yu tumuraan ko torox tey boo ñëwee assemblée ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ñoo gën a torox ci àddina benn bu nu wàccee duñ mën a dem ñaari bi amutoon ay cadeau seen doom yi dañ leen di dàq yooyu yëpp am na ay jafe-jafe yoo xamante ne am na fi duus yi nga xam ñoo fi nekk sax yàqu na ba pare suñu hôtel bi nga xam mooy hôtel bi sax dañ ko loué yaakaar naa loolu foofu la ñu war a wax man maa ngi invité cour de compte contrôle ak OFNAC mu ñëw assemblée nationale ndax li am assemblée mu amul fenn kon jàpp naa ni monsieur le ministre bis bi nekk na bis boo xamante ni du ko mën a wote maa ngi rendre hommage Amadou Ba ci taxawaay bi nga xamante amoon na ko ndax moo fi nekkoon daaw di rendre hommage tamit Birima